ñu topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal tey nag uh, ñu nekk ci bisu naxar ki génn àddina muy Gaston Mbengue ñu toog ak koo xamante ni doomam la muy Modou Anta moom ràññee ngeen ko ci rek uh, li nga xam ne moom mooy Gaston Production dama koy nuyu rek su ko defee ginnaaw bi ma jaare ko uh, Modou Anta maa ngi lay. maa ngi delloo siyaar baax soxna si di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ne xalaxal mawta wal xayaata li ngi sant yàlla bu baax di julli si yonente bi di sant suñ ñaari waajur di jaale ahlu làmb yëpp suñu père suñu papa muy père Gaston di ko jaale famille Mbengue yëpp waaw di leen ko jaale baax di ñaan yàlla na ko suñu borom xare àjjana te yéexañu barke Serigne Saliou barke borom Touba. alors mu danta ku ne xam Gaston Mbengue monument bi mu doon ci euh, diwaanu Sénégal tey mu wuy ji boromam nga amoon ak relation ak moom relation boo xam ne askanu Sénégal ràññee nañ ko dem na ba euh, nekk ko mais doomam nga euh, tey ban témoignage nga mën a defal ci. waaw waaw moom. daanaka sax boo dee xool du ma mën a wax si moom lu bëri parce que diiran feebar bi yëpp man bi ma fay nekk chaque jour dama daa dem di ko seeti maman yi ma ko doon seet si nag daa ñëw ñu toog ñu waxtaan bu añ jotee danaan Modou kaay fii sama wet kaay nga toog ñu añ ñu lekk ndoon naan waxtaan bu ma gisul sax dafa may laajte mais bi ma fay mujjee dem muy jour korité bi ma fa demee jour boobu gisuma ko bi ma ko gisul nag ci laa xam ne yaa ko chose ci la ma makkan ma ah sa père de tey mënoo koo gis ñaanal ko yàlla rek mais tey moom mënoo ko gis te saa bu ma ñëwaa ñoo daa toog bu bëggee jóg sax te Issa nekk fii wala keneen wala Mouhamed man maay jàpp yëkkati xam nga cër boobu aussi tamit ñu may ma ko comme ni nga ko waxee rek dem na ba daanaka liggéey booleetuñu wallaay lancim tey père moo nekk koo xamante bi ni mag la nekk kilifa ci làmb mais tey bu jàppee benn affaire xale bu ndaw sax mën na ne ko bàyyil mu bàyyi temps yële passé dafa am benn yëngu-yëngu bu amoon ba coow li bari ci Gaston Production ma bàyyi ba Makan génn Abdoulaye Ndiaye génn Mouhamed génn ma yoxoosu ndànk dem fa wallahi lancim pendant dix minutes père di ma déglu ma ne moom kese ak yàlla booba maman Ndeye Marie mi ngi si néeg bi ma ne ko per mu ne ma waaw Modou ça va yaa si jàmm ma ne ko ah man de xam naa ne li nga def ci làmb 92 bi nga ñëw ci làmb boobu laa judd te li nga def ci làmb benn promoteur def ko li nga produit kenn defu ko ci làmb ci ay mbër kon nag am na ci loo xamante bi nii boo demee ba toll fii am na si ñoo xam say doom lañ ñii say jarbaat lañ ñii say sët lañ baal lii nga def lii ci xale bu ndaw bu toll ni Modou Anta mu ne ma noonu nga ko gisee ma ne ko waaw xam nga du jar expliquer parce que boo tuddee yooyu mën nay andiwaat ay xuloo mu ne ma loolu nga gis ma ne ko waaw mu ne ma wool ma Abdoulaat ma woo Abdoulaat Ndiaye sama téléphone jox ko ko mu ne Modou Anta moo fi ñëwoon mu ngi nii toog di la dégg te yàlla xam na ne gis nga kuy wax si moom waxal loo xam boo waxee léegi day woo diw moom moomu def ko à part loolu ne la diw a ngi nii moo waxoon lii waxal li nga waxoon barke Cheikhul Khadim mu def mais livre bi téléphone ne Modou Anta moo fi ñëw moo ne ma lii moo ne ma lii moo ne ma lan nga ci xam Abdoulaye Ndiaye ne ko li Modou Anta wax dëgg la mu ne ma nan def loolu te loolu yombul fan yële passé am na ñaari journaliste yu mag yu nekk ci ay télé ñu jàppante woon ci benn palaatoo ma ñëw wax ko ko mu woo kenn ki fi ma toog kooku tuubal ko ne ko dootul am mu woo keneen ki mën naa tudd seen tur mais xam nga rek day xaw a nuru beneen affaire mu leer na la te boobu mi ngi ci feebar bi te mi ngi defar ay diggante day defar ay relation pour retaxal en tout cas daal ñu ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom xaare ajana barke Seydina Mohamed suufu yoof bi ñu koy jëbal mu oyof ci kawam lool lool lool lool en tout cas daal ñun moom du ma ne man ñàkk naa mais axlu làmb yëpp ñàkk nañu parce que jëlee na ay mbër cent mille yóbbu leen tey ba un million jëlee na mbër quarante mille tey ànd ak ñoom ànd ak ñoom benn ci Balla Gaye 2 ànd naa ak moom oto bi Balla Gaye njëkk a yor Père Gaston la kër gi Balla Gaye njëkk a yor Père Gaston la te lool Balla Gaye wax na ko si làmmiñu boppam démb témoigné ko kon yaakaar naa ne nag ku mel noonu bu fi jógee ànd ak ay mbër jàppale leen ba mbër yooyu tey di jàppale yeneen nit. di am ay employés sax di leen liggéeyloo kooku wax dëgg yàlla Sénégal ñàkk na quoi. tey père euh, Gaston mu nekk lu marqué sénégalais yëpp mais dañu gis que euh, jamono bi muy tëdd feebar nekk bitim réew ñu tàggee ko fi tàggewaat ko fi tey mu wuy suñu borom ci moment yooyu lan la père Gaston dund. waaw waaw xam nga moom daanaka euh, per sax am na diiran bu mu toll yorul ay téléphone am Mohamed moo yoroon téléphone wala soit Isa comprendre nga di kii yu bëree bëri mais nag xam nga Sénégal moom. yooyu fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi mais am na yoo xamante bi nii tamit dafa ñaaw tey da ngay gis papaay jàmbur wala yaayu jàmbur wala rakku jàmbur wala jigéenu jàmbur tëdd nga jekk saay rek jël sa clavier bindi bindi ba mu neex la nga publier YouTube wala Facebook wala TikTok xam nga kenn ku si nekk looy def lu nekk xool ko bu doon sa yaay la wala bu doon sa baay parce que man mii sama papa yàlla na ko yàlla xare àjjana tey bu doon dund wallaay laa sim ku ko tàggee ak ku ko mën di dugal foo mën di nekk dinañ dem si yoon. Euh, bi mu nekkee wax alhamdulilah dañ ko dégg mu wax benn kàddu ne man feebar bi ma dal yéenewu ma sax mu dal samay noonu feebar boobu sénégalais yëpp doon posé question kon lan moo war a dal Père Gaston ba tey mu mën a wax lu ñu waaw waaw nattu la rek xam nga suñu borom moom mooy jël feebar jox ko ku ko neex mooy jël wér jox ko ku ko neex mooy jël xam-xam wala am-am jox ko ku ko neex xëy na nag moo ko séddee feebar te moom li mu sentir xam naa ne yow da nga koo gëj a gis mais père mi nga xaman nga xam ne bu jógee bëgg sañse bëgg parfum yeneen nit ñëpp jàmm dox normal xam naa danga nga koo gëj a gis mais dool na benn moment boo xamante bi nii boo ko gisee man mi li may ndaw ndaw maa ko ëpp kon nag feebaroon na xëy na nag loolu bëggul benn doomu aadama dund ko waxul bëggul sama doom daj ko de dana yéene ma benn doomu aadama mu dal ko parce que xamoon na li ko dal na ci feebar yoo xamante bi ni nag yàlla dala ciy natt pour jaala la ci ngir jéggal la say bàkkaar yàlla na feebar boobu bokk ci feebaru Père Gaston bi. Hmm. rek ginnaaw bi ma la jaalee ak ban message ngay lancé parce que tey euh, ñu bëree bëri sax ñi ngi posé wu question Luc Nicolaï digganteem ak Père Gaston li mu jotoon a mel ak fi mu mujjee egg est-ce que mën nañ ko. ah ah nañ baa yooyu nañ rafetal rek àdduna amul solo père Luc Nicolaï ñu ngi koy siyaar suñu papa suñu Fallou di ko nuyu bu baax moom nit ku baax la en tout cas nañu rafetal lii am am am na jeex na xam nga suñu borom mooy jël bakkan du doomu aadama mooy jël bakkan doomu aadama bu jëlan paaka jam ko nit sax bu yàlla newul waaw du dee comprendre nañ ko ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana te yeex a ñu di ko jaale ñoom Mohamed xam nga ñoom Penda ñoom Anta xam nga euh, Euh, nu mu tuddati nabu xaali famille Mbengue yëpp boo dee lim daal da ngay juum ñu ngi ko leen di jaale di ko jaale ahlu làmb yëpp di ko ñaanal yàlla na suuf woyof ci kawam. barke ah. père <laughs> père na xam nga daanaka yooyu duma si mën a wax parce que man démb moom dama jooyo jooy tey nag fas yéene na maa takku ba du jooy. non dama fàlliku lu bari parce que bi may ñëw Gaston production interview bi mu mujj def man maa ko jël mu ne ma góor góorgóorlu. ba siteel ma ñaari nit sax ne ma ñooñu yaakaar naa ñooy leen numéro un mais yow am na lu ma Makan wax ci yow am na lu ma Abdoulaat wax ci yow boobu laa ko mujjee jël ñu teg ci presque un mois wala deux mois feebar bi daaneel ko bi ma fay dem ba ci biir feebar bi wallaahi lancim wan na ma appelu Macky Sall nii barke Cheikhul Khadim ne ma dama doon discuter ci moom boobu élection yi xaajagul bay ñëw ngir télé dama laa bëgg a ubbil télé barke Serigne Touba Mbacke wan ma appelu Macky Sall ne man télé laa la bëgg a ba pare yëkkati ay millions plus de 7 millions ngir yemale ko ci ay caméra ki affaire ubbil ñu benn studio boo xam ne da doon xëy moom di dem di ko xoole boobu affaire bi bàyyi woon na ko ci diggante bi ci la ko feebar bi daanee laat yàlla jël ko xëy na loolu la yàlla na moom jërëjëf